ñoom saytu bu ñu def ak taxawin bu ñu def tax na ba police centrale bu géejawaay teg loxo juróom benn nit yi nga xam ne ñoo doon def ñaawteef juróomi góor ak kenn ku jigéen bërki démboo njaay commissaire bu malika dafa jàpp juróomi nit yoo xam ne ay agresseur lañu démb ci guddi dans la nuit du 8 au 9 ñu jàpp euh, beneen bande boo xam ne juróom benn lañu beneen jigéen nekk ci jigéen bi sax euh, coroy kenn la ci ñoom muy le chef de la bande 800 000 francs yi ñu fekk ci ñoom ndaw si la ko dénkoon sax moo tax ndaw si dañ koy defeere pour recel également ak oto oto boo xam ne bu ñu sàccee ci lañ koy def fekk leen également ak ay tête de biche maanaam yooyu ñuy dajjee di ko soteel pompe fekk leen également ak euh, ay paaka yu bari ñeenti paaka defe naa wala juróom ak ay téléphone portable juróomi téléphone portable yoo xam ne également ci ay nit lañ ko sàccee am juróom benn nit ñoo xam ne gis nañ leen ñoo xam ne ay victimes lañu liñ doon sàcc ci cinq cent mille la tàmbale lay tourner ak un million huit cent mille taxawaay bu ñu def ci waxtu bi nga xam ne couvre-feu bi mu ngi am tax na ba takk der yi teg loxo loxo ñu bari suñu sukkandikoo ci commissaire central bu Géejawaay. bi ma ñëwee ba léegi dañu occupé zone nga xam ne dafa am importance bi Covid bi ñëwee également ñu gën a am renfort bu am doole boo xam ne gis ngeen dañu char de combat bi nga xam ne blindé la ay yeneen yeneen te lii ay prise yu mujj la rek mais. lu bëree bëree bari jàpp nañ ko fi donc dispositif Covid boobu également daf ñu permettre tey ñu jàpp ay nit ñu bëree bëree bari ci wàllu xeex mbas mi ndax jàpp nañu ñetti junniy nit ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne duñu sol masque jàpp euh, également junni ak ñeent fukk ñoo xam ne respecté wuñu couvre-feu bi ak ñi juróom fukk ak juróom ñett yoo xam ne arrêté bu Guédiawaye ak bu Pikine ci pour nit ñi déti tëj marché yi à 17 heures dañu dem au delà de 17 heures ñooñu également dañ leen di jàpp kuñ ci jàpp dañ juróom-ñetti millions millions 121 mille francs CFA juróom benn nit yi nga xam ne teg nañ leen loxo dinañ leen topp ci wàllum mbooloo ngir def lu bon jënd ak sàcc alalu jàmbur ak leneen li nga xam ne loolu yépp dinañ ko teg seeni ndodd buñ leen di jàkkaarloo ak procureur.